J'aimerais vous remercier nos partenaires de la presse, Madame la représentante résidente de l'Organisation mondiale de la santé, pour la prochaine heure. Nous sommes réunis cet après-midi pour procéder à la déclaration officielle du euh, cas qui est confirmé dans le cadre de la maladie euh, à coronavirus. Il s'agit d'une procédure que le pays est obligé, bien entendu, de suivre dans le cadre de la transparence, mais aussi dans le cadre de la bonne information aux populations et surtout pour une meilleure maîtrise de l'information par le de santé. Le vendredi

l'état du patient ne suscite aucune inquiétude majeure. Ainsi, le dispositif de surveillance et de riposte au covid est renforcé et tous les moyens sont mis en œuvre pour circonscrire la maladie. Il s'agit bien sûr de la des cas contacts, particulièrement de ses deux enfants et de son épouse. l'Organisation mondiale de la santé a été informée conformément au règlement sanitaire international. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale appelle l'ensemble de la population à la sérénité et au respect strict des mesures de prévention recommandées. Je sais que nous pouvons parfaitement faire confiance à notre système de santé pour la maîtrise de toute la situation. Avant de donner les éléments d'information à Europe, j'aimerais dire, pour les besoins de l'efficacité, de la transparence dans l'information, les journalistes qui souhaiteraient avoir une accréditation permanente au niveau de notre service de com pour recevoir l'information au jour le jour et la traiter sont la bienvenue au niveau d'une salle de presse nous allons installer au ministère de la Santé et de l'Action sociale. ñu ngi leen di gërëm bu baax taskatu xabaar yi si seen taxawaay ak si ngeen wuyu si si tey élément d'information bu am solo bi ñaar fukki fan ak ñett weeru février cellule d'alerte ministère la santé et l'action sociale jot na benn information bu jógee ci benn structure médicale privée ne am na benn patient bu fa ñëw de nationalité française mais bu ñu ko seetee am na température wu 39 degré bi di metti mooy produit mais aussi bopp bi aussi di metti loolu joxe njort ne mën na nekk feebar bi xamante ne mooy coronavirus parce que loolu mooy signe yi xamante ne moom lañ joxe ci tableau clinique bi ñu gisee loolu suñu équipe yi dañoo dem immédiatement def prélèvement bi ñu defee prélèvement ñu yóbbu ko effectivement fu ñuy wax service des maladies infectieuses pour mën ko fa téye le temps que résultat yi génn patient boobu nationalité française la mais mi ngi nekk Sénégal depuis ñaari at ak ñaari doomam ak soxnam dafa demoon ba France précisément fu ñuy wax Nîmes ci benn station de de ski bu nekk dans la région bu ñuy wax Auvergne-Rhône-Alpes nekk na fa ci période du 13 ba le 25 février dellu ci Pasteur bi ñu xoolee résultat yi xamante ne analyse bi joxe na wax nañu ne résultat yi dafa positif mooy que ne jàngoro bi mu ngi si yaram bu ko defee nag taxawaay bi yokk ñuy wax ne ñi ngi leen di wax ne bu kenn paniqué parce que système de santé Sénégal man ngeen ko wóolu ci stratégie bi xamante ne teg na ko en place pour circonscrire maladie déjà li ñuy wax cas contact mooy par exemple ñaari doomam soxnam ba aar ñi xamante ne ñëpp yaakaar nañ ne war na leen mën a vérifier déclenché nañ ma di wax ne tam organisation mondiale la santé yëgal nañ ko information bi parce que loolu mooy procédure règlement sanitaire international ma leen di wax di leen yëgal ne situation yu mel nii li gën a nekk farata ci xeex bi mooy joxe information bu baax pour que donc dara ba na mën a am su rumeur boo xam ne day yàq xew bi te loolu nag yaakaar naa ne ñu premier partenaire yu war a def liggéey boobu suñu côté mooy ñi xamante ne ñoom ñooy tas xabaar yi mooy journaliste moo tax ma leen di demander organes yi xamante ne bëgg nañ accrédité ay journalistes ñu ànd ak suñu service de communication ma leen di yëgal ne man ngeen rapproché wu de benn salle de presse dañ ko mettre en place comme ça bés bu jot rek ngeen mën a am information bu baax à la source loolu lañ ne woon danañ leen ko yëgal ñu ngi leen di bu baax salaamaaleykum wa rahmatulah.